nit ki bu jógee di def association eh, yoon dafa wax ni daf koy déclarer kese comme li ñuy wax ci marché moo ko association bi moo yëpp te sous le régime de la déclaration déclaration bi nag dafay am forme bu mu war a respecter pour mu mun a recevoir bu respecter forme yooyu yëpp bañ jox ko administration yoon dafa ni administration trois mois la am pour génne récépissé su rombee trois mois yi yow jàppal ni silence su administration boobu mooy que nangu na sa association lu dëgg mais nag buñ ko organiser loolu yëpp mën na ci bañ a bañ a am euh, ni ngeen defoon noonu dajale def une opération coup de pour ça saa yi ngeen ko defee ñu ànd ci ak yéen bàyyi li ñuy def pendant un temps jël loolu en charge féetale ko koor beneen bi ma fàtte woon ci suba ñëwaat waxoon naa ko Thiès Mawar ci suba bëggoon naa ci ñëwaat mais fàtte ko association di ko defar ci njëlbeen gi ba fa muy mujjee te dërëm administration laa jot ko ci ci chef de service yi mu ngi may wax sànq ne mu ngi may expliquer ah dix mille francs yi nga xam ne pour man ay rumeur la woon rek yi ñuy laajte mu ngi justifier lan moo ko waral déedéet bu fekkee pratique la buy am nañ ko dakkal ñii ñëw di defar association yoon tegu leen ñu fay gërëm lu dul timbre ba ñuy jënd di ko taf ci seen statut bu fekkee CDEPS bi dafa am ñu muy liggéeyloo war leen jël en nañ xool yeneen mécanisme hmm? voilà mun nga luwee saalu CDEPS bi mun nga def nangam mun nga def nangam loolu yoon may na la ko mais laajte xaalis ci foo xam ne yoon mayu la nga laajte ko fa kooku problème la donc euh, waxatuma sax chef de service mais ñiy defar association yéen ñi leen jiite bu kenn ci yéen nangootee joxe un franc pour defarloo association loolu mooy parce que lu ñuy teg ci deru deru administration bi la te du comprendre yow mun nga comprendre ne lii ak lii moo tax lii nangam ak nangam mais kiy defar euh, association bi moom li mu jàpp mooy pour sa dossier dem foog nga joxe nangam te loolu yoon waxu ko léegi nag bu fekkee dafa am nit un bénévole bu nekk fële moom euh, yàlla may na ko ci xam-xam boo xam ne mun na ko monnayer ak yéen kooku seen diggante la ak moom mooy mënuñ monter dossier bi am na koo xam ne moom mun na ko bénévole la yoonam newul ci affaire u état moom mun bu ngeen waxee moom yéen a xam mais benn structure état du SEDEX du commissariat du préfecture du gouvernance amul fenn fuñ ciy laajee dërëm suñ ko fa doon laaj su amoon fuñ koy laajee xanaa ca ñu koy signé lay doon fañ koy signé xëy na foofu la waroon mun a doon mais CDEPS yow bu sa boo boo monté dossier bi soxlawul ngay jaar CDEPS yow déedéet c'est pas un pas euh, un euh, passage obligé pour association CDEPS man maa koy saisir ne ko xoolal ma association bi ni ñu ko tënk tënkee ndax méngoo na ak li yoon wax loolu mooy rôle am wala bokk moom mu lay accompagner ci voilà comme dafa am ay prérogative bu accompagner le mouvement associatif mu accompagner la ci loolu xelal la nga ñëw mu ne la dossier association lii ak lii ak lii ak lii la euh, statut li ñu lañ koy defee mun naa la sax jox euh, for statut type boo xam ne voilà noonu mais amul lu ñuy fay pour defar association ku ngeen ko fay rek ci poche am la jëm dërëm demu ci ci poche état bi lu dul timbre ya ngay jënd di ko ci taf te timbre yooyu sax waroo ko jëndee foofu da ngay yaay dem jënd say timbre ñëw taf ñoom waroo leen jox xaalis ñu leen jëndi timbre wala ñoom ñu jaay la timbre sa duñ jaay timbre n'est-ce pas donc loolu dama bëgg muy lu lu leer ci bopp nit ñi bu fekkoon doxalin bu fi am la nañ ko dakkal léegi nag suñu problème ak su ñun en tant que service ak suñu ay agent yu ñuy liggéeyloo lu ñu leen di motiver nañ ko xool feneen mais du loolu merci. Voilà le maire de jégal euh, euh, avec tous les problèmes que j'ai entendus les injures et tout les gens savent que l'autorisation de construire pour le et l'implantation si on peut-être les gens très tard vont se rendre compte mais si je recevoir le le le propriétaire de Mbaka dans mon bureau mon amour état moma jox souf bi mais man su ma ñew implanté wu fi di jël xaalis ties way to moins en contrepartie amul lu ma def pour ties way ne ok j'ai convoqué les femmes de de Grand sandi dans mon bureau il faisait 19 neuf heures maa leen jëli sax ak suma oto je crois avec l'appui de mon conseil conseiller et grand frère Alassane Ndiaye bi ñu ñëwee toog man ne leen ki moy tembaka Ka dafa ñëw pour def fii poste sandi amna autorisation état

Quand il est parti, d'un m'a appelé pour me dire j'ai mis 15 millions dans le poste de santé. Dis ça aux dames après, nous disons c'est pas complet. 10 millions, je m'excuse, 10 millions le dégâts. mu dem ba ci suba gi famille. wax ko femme yi suba gi mu woowaat ma ne la nuit porte conseil Si ma ci fait 10 millions keneen complété ko mën na nekk un problème de politique je prends tout l'investissement en charge maintenant trouvez-moi le site le ñu C'est là où il y a un problème parce que Bref, je crois qu'un quartier ne peut pas être par décret, être affecté par, euh, à une commune. L'éclairage, l'éducation, la santé, ça revient au maire qui charge. Mais nous avons une commission d'expropriation des parcelles prévues par les textes. Le maire va le présider. j'ai convoqué tous les services. Nous sommes, je crois, c'est le 29 et le, et le 31. Trois parcelles collées. Mais le 30 appartient à l'ex-maire de Gorée le 29 et le 30 qui sont collés, donc moo waroon nekk au centre j'ai convoqué la commission avec le Pascal et tout on a fait le la commission le conseil municipal s'est dit def expropriation pour affecter quoi. ñu dem ba le préfet je ne sais pas le maire de la ville ñu day problème non la la mairie le maire n'est pas compétent pour le faire ok même si je ne suis pas compétent pour le faire vous qui êtes compétent lui c'est un problème pour xam ne nous avons nous a relancé j'ai stations à construire et que bi ngi su dans le budget parce que c'est comme ça que nous fonctionnons Nous avons fait de la santé on nous a remis les projets nous avons été délégués, nous avons le tout qu'est-ce qui se passe Nous avons ba ci peut-être en privé ça on peut se dire mais si euh, kenn ku nekk Thiès kilifa bu mag dem taxaw ci terrain ni moo ko moom muy indi coow bon après c'est des menaces conseil way su ko maire laalee dina xam je vais faire j'ai pris la radio wax ko li ma koy wax dégg parce que soo ma xamoon yow doo ma menacé mais coow li ci les mêmes personnes di see see see see wëlbatiku parcelles yooyu ñoom ñoo ay acte de vente c'est que c'est du faux parce que au moins moi, moi j'étais à la gendarmerie. J'ai travaillé avec les commissions d'enquête de la gendarmerie. Mais Moulon a trois actes de vente. Hier, nous avons beaucoup de fumée de même machine, même. Euh, lépp nekk benn même signature ce fait qu'il da ngeen doon sàcc xam ngeen ni au moins mooy na même signature même date vous êtes vous venez de zone mais affecté dans une pièce même le mën a jëndandoo terrain yi a amul sens mais lii yéen kilifa ngeen bu leen ci dugg deux ans au cours derrière

Jusqu'à présent, on est entre le maire n'est pas compétent, c'est le maire de la ville qui est compétent, au détriment de, de ces populations. Dembaka qui est là, qui a l'argent, qui veut construire, plan il nous a envoyé une lettre, la lettre est là. je suis prêt à construire, je n'attends que. L'autre du problème grâce. Qui est compétent pour faire l'expropriation On n'est pas dans le cadre d'un lotissement. On est connu du lotissement. Lotissement, c'est vierge, on fait, maire, ville ou pas mais on est dans le cadre de parcelles inoccupées et les textes sont clairs. Article Wachulolaire, que le maire, président de la commission domaniale, peut convoquer les services compétents, nous passer à l'expropriation et euh, à la désaffectation et à la réaffectation des parcelles. le mot bloqué le le document jusqu'à présent Demba Ka les populations def na li ñu mais vraiment c'est là le problème avec les jeunes bon moi je suis un peu désolé mais comprendre moi le le le le fait de dire que maire de nous recevoir nous on se voit fréquemment peut-être venir dans mon bureau pour moi si c'est pas l'audience ak nous mais ce que j'ai à vous dire je parle sous le contrôle de l'inspecteur qui est là en matière de présence pour la jeunesse je défie tous les maires de la région de Thiès mon département région là en assistance à la jeunesse de Thiès et si je sors aujourd'hui ce que j'ai fait pour la jeunesse Qui le nag maintenant bonne formule il faut que nous tombions. ngeen mais toutes les fois ils me interpellé ba bii ci que ba suis ci bi jeunesse non seulement j'assiste la jeunesse et je les trouve partout où ils sont au Sénégal partout maintenant ce fait qu'il y a des couacs je suis disposé à ce qu'on se concentrer et qu'on nous dise monsieur le maire orientation bi mais man li ma on se voit on vous me dites monsieur le maire comme vous nga que c'est vous que je reçois mais je ne reçois pas le le, bureau. le, bureau. Mais si vous avez la facilité d'être reçu, je ne vois pas le pourquoi bureau a en difficulté pour me rencontrer le Si c'est des couacs à mon niveau, je prends l'engagement devant le préfet. Si vous voulez demain, on se Et vous après demain, ça dépend de vous. Mais moi, je n'ai jamais, je me traverse dans l'esprit que vous avez des difficultés pour me rencontrer. C'est pas sur mon téléphone, c'est pas dit accessibilité, accessibilité. n'a vraiment préciser beneen bi préfet mooy li délégué wax par rapport au poste de police nous avons écrit je crois envoyé nañu parce que boobu sa fi lettre parce que c'est un problème bu nous wax depuis boobu lettre de relance da sax madame si je crois que voilà je préfet la ko envoyé pour mu ñëw parce que de Sappo non de way de jusqu'à Mbourkat c'est une zone bu nekk fii et ils avaient même proposé un endroit pour xam ne bu fekkee bëgg nañ ko mën nañ ko def problème sécurité je crois loolu je crois que c'est des problèmes qui peut-être préfet bu ci la réponse tu vas m'interpeller pour pour m'apporter des des mais ces deux questions là c'était des questions sur lesquelles je voulais apporter des, des clarifications merci beaucoup. Merci. mesdames, Messieurs les chefs de service, je pense que nous eh, yegg si ci ci fin euh, li may tënk rek mooy wax dëgg yàlla noté nañ fi yu bëri yu am solo yoo xam ne eh, commune Thiès Ouest jànkonteel na ko eh, donc incha allah loolu yëpp ñu ngi ko tënk bu neexee yàlla dañ koy def comme eh, document de travail demee dañ koy génnee xam na après dinañ ko partagé waat ak maire bi pour ñuy suivre ah point bu ci nekk ak lañu ñu cay voilà day am yoo xam ne day laaj buñ jógee fii ñu am yeneen jotaay peut yu ndaw pour gën ko leeral lu mel ni poste de santé beeg yooyu mais dinañ xool fu gàllankoor yu féete ñu xool nan lañ ko mën a mun a li ma ci doon jaaxal médecin rek réglé na ko euh, dama doon ragal mu bañ a nekk ci carte carte sanitaire bi mais moom nee na foofu effectivement boole nañ ko ci ci carte sanitaire bi donc bu problème boobu régler, je pense que li ci des euh, warul mun poser problème en tout cas warul nekk ne ay clivage moom mooy tax population yi du ñu yegg ci yenn prestation yi danañ ko suivre bu baax gis naa tamit ne comme fépp ci biir Thiès le foncier est un grand problème le foncier dans son ensemble dans sa globalité je mets là-dedans tous les projets voilà et en tout cas tout ce que nous fi wax yépp li nga sur le ci alors alors nous de dama décider ni duñ ko recueillir préoccupations, yi mais dañ koy consacrer benn ndaje boo xam ne spécialement loolu rek lañ ci waxtaan je crois que keroog ñu ngi koy junj biñ mujjee daje ah, ci lañ jëm insha allah ci semaine yi fan yi rek dinañ convoqué daje bu bu yaatu entre maire yi ak technicien yi ñu xool lan mooy problème bi ak naka lañ mun a fexe ba problème par problème ñu indi ay ay solution voilà alors euh, bon wax nañ fi inondation yi tamit en tout cas wala bok lu jëm ci Euh, coono bi nit ñi di am ci période nawet euh, may wax rek ne bon bu fekkee ne ndox bi bu taayee deux heures de temps après mu dem kooku moom amul problème ah voilà ndox bi ñu jaaxal kay mooy bi ñëw songu kër jàmbur yi nekk fa te ne du fa jóge alors euh, loolu li may wax mooy dañuy tëral benn comité comité local de gestion des inondations Nous avons identifié dina identifier inondables site eh, inondable yi a ci eh, ville de Thiès commune par commune nous site par site lan mooy action yi faut fa war mobiliser ak ci kan lañ ko faire, wala fan lañ ko sous forme de plan d'action porter à l'attention des autorités parce que chaque année à la veille de l'hivernage le gouvernement prend des mesures pour accompagner les, villes inondables. Et donc, euh, nous allons porter ça à l'endroit du Comité national de gestion des inondations pour que ces préoccupations-là puissent être prises en charge. En tout cas, qu'on essaie de nous euh, faire ba taxaw mais dans population

Euh, opération d'envergure bu nga des jeunes en charge la question du maraudage dans la commune alors mettre en place un dispositif euh, bu nga pendant deux mois au moins de occuper terrain pour faire face à ce fléau là ñu temps le temps ñuy def Nous avons arrêté course poursuite yeeg yooyu noonu ci biir waxuñ maraudage bi arrêté maraudage bi li ñuy def fi moo koy moo koy dakkal mais ñi ci doon di def ay action euh, spontanée wala non cordonné wala voilà yoo xam ne kenn xamul lan la kenn maîtriser wu ko lañu wax nañ ko arrêté loolu nag bu fekkee ne euh, loolu amul ah su boobaa nag dina am jafe-jafe tuuti. Ah, loolu lu ñuy lu ñuy leerlu la keroog yàgg ma woo di ma ko wax mais bi ma génnee tamit woote am na lu ñu ma wax xam naa après danañ ci gën a danañ ci gën a waxtaan. mais lu wóor te wér mooy euh, opération yooyu ñu doon wax euh, il est extrêmement urgent léegi ñu ñu taxaw ci. parce que euh, sama collègue bi nekk Mbour mu may wax ne keroog biñ nekkee di ci jotaay boo xam ne dama ko fa soulever. mu ne ma di ngeen gën a am ay jafe-jafe ndax ñun Sindia dañ fa taxaw léegi ñoom kenn newatul Sindia ñi newoon Sindia yépp dañoo daw si dugg si biir Mbuur dugg si biir euh, biir Thiès donc muy loo xam ne dañ ci war a taxaw tey dama ci ànd ak yéen et incha allah loolu tamit bokk na ci préoccupation yu gën a mag yu ma am fu mu toll nii pour accompagner leen ci bon yeneen question yi bëri na ñu ngi wax euh, wàllu sécurité sécurité moom li ma wax sànq euh, wax dëgg yàlla bëri na fuñ jaar ci réew mi mais li ñu gis fii Thiès dafa dal suñu xel ci wàllu sécurité euh, néew na boo rombee Dakar néew na nga gis ci réew mi dëkk boo xam ne am na maillage euh, force de l'ordre comme fii Thiès maanaam lii fii commissariat ak euh, poste de police amul fenn fooy dem bu weesoo Dakar ci Sénégal fekk ko fa n'est-ce pas donc loolu normal la Thiès moo moo moo mel noonu sécurité nag du doy nit il suffit que mu xëy benn guddi eh, benn dajeeg agresseur wala gis benn agression tout de suite day am sentiment que il est en insécurité mais en réalité l'insécurité régresse du fait de la euh, présence des, forces de l'ordre. Aujourd'hui, chaque nuit, goutte de goutte, une opération est menée dans toutes les communes. Opération Karangé, chaque policiers yi ngi voilà maintenant xalangu dajut suuf du doy kenn du mun a am euh, nombre de nu mu tuddati euh, force de l'ordre yi nga xam ne moo lay mun a permettre nga am insécurité zéro c'est pas possible léegi nag li ci nekk mooy population yi tamit fokk ñu jàppale de forces de l'ordre fokk ñu taxawu leen ci accompagner leen ci ay information ci ay renseignement pour leur permettre d'être plus efficaces dans la réponse contre l'insécurité. Je pense que su a benn agression rek euh, dootuñ nelawati amul lu ñu mais nag taxawaay bi ñu war a taxaw pour que loolu ñu xeex ko mu dëñ fi wala bu mu am taxawaay boobu moom mat na maintenant nag voilà il faut que ñu ñu defaraat jumtuwaay yi ah xoolaat peut-être euh, Euh, collaboration bi am pour que voilà ni may waxee mooy euh, collaboration yi mooy bi toujours bu fekkee ne góor gi dafa xëy dafa jóg fajar di julli ji juma dajeek loo xam ne xaw na ko jaaxal mu xool ko ba xam ne lii xaw na ko jaaxal mu continuer dem julli ji yeewu fajar ñu ne ah ay nit day def nañ fi nàngam ak nàngam mu daldi ne ñooñu de mooy ñi ma gisoon kon ci fajar gi problème bi noonu xëy na loolu ba nga ko gisee tout de suite am nga réflexe woo commissaire bi wala woo benn agent de police ne ko ah man kat gis naa ci koñ bi ñoo xam ne seen kanam miinuma leen wala ñoo xam ne li ñuy dox daal leeruma ne loolu la kooku tamit jël ay matuwaayam xool ñooñu li ñuy dox lan la bu dee jàmm la ñuy dox ñu wéy continuer dox seen jàmm bu dee doxuñ jàmm nag ñu jëflanteeg ñoom mais alors yu mel noonu dina jàppale bu baax ah, alkaat yi ci seen liggéey en tout cas ñoom aar ñu mooy seen liggéey bés bu ñu demee ba ñun ñu gis ne aar wuñ rek ñoom seen liggéey def donc ñu ngi ci ñu ngi ci ànd ak ñoom vraiment le dispositif bi am fii wax dëgg yàlla du ma ne c'est excellent mais en tout cas c'est c'est c'est bon ah c'est bon et je pense que avec ça il est possible de prendre en charge les préoccupations des populations en termes de sécurité si maintenant ces populations-là collaborent bien avec, euh, les, forces de l'ordre. Bon, a tamit euh, euh, dinañ ci continuer en tout cas dire, délégué bu ko fi wax dire, en ville au moins tous les deux mois wala gën gaa sori tous les trois mois ñu dajee ak délégué de quartier yi ànd ci ak maire yi ñu toog ñu waxtaan xool seen préoccupation yi régler ko liñ ci mun a li ñu ci mënul ñu jébbale ko loolu moom foog muy am parce que ci daje yooyu noonu nga mun a suivre au jour jour li li am ci crées un cadre formel boo xam ne ça te permet de suivre l'évolution des, choses, ça te permet d'avoir en temps opportun des informations sur lesquelles tu peux te baser pour, travailler. Donc l'OLU, inshallah dinañ ko formaliser santo ko sous-préfet pour nous, amal Nous multiplier les rencontres avec les acteurs à la base hein, voilà je crois qu'au moins pour relever le défi sécuritaire, c'est c'est un impératif qu'il qu faut, qu faut régler maintenant. Bon, yeneen yi ay kii la yoo xam ne dinañ ci indi ay musée bi gros porteurs yi ay euh, voilà wax nañ fi waxu euh, mbalit mi mbalit mi tamit préoccupation la ah xam naa ne euh, bon du mairie bii lañ koy du l'État, état def du lu maire bi di def donc loolu dinañ ko répertorier comme problème boo xam ne danañ ko jébbal ñi nga xam ne ñoom la yoon dénk ñu ñu liggéey ci mbalit mi alors euh, projet état yi monsieur le maire wax naa la keroog ma amul benn projet état boo xam ne war nañ ko dérouler ci benn commune boo xam ne commune boobu waxuma ñu yëgal ko ne mais associé wuñ ko ci su amee rek damm-damm am lo xamné ne alors man Il faut ko fu projet état pour xamné ne koy état koy dérouler di di def ay à votre insu dites-le nous et on fait ce qu'il ce qu'il y a à faire vous êtes commune le territoire c'est vous qui l'administrez l'état quand l'état décide de, de mener un projet dans le territoire communal, l'État vous en informe et recueille votre avis. Il dit, je décide de faire telle chose, quel est votre avis Maintenant, cet avis ne le lit pas, tout ça, mais ça c'est autre chose. Alors, et donc, euh, vraiment, il cas de, eu de cité euh, bu euh, responsabilité le comité de suivi Promoville c'est sous la responsabilité du préfet donc lolu dina convoqué ce comité là Nous avons tous les maires Promoville wax ñu fan donc information yëpp ñu ñu am ci alors beneen bi mooy ak forêt. je crois que malentendu je considère simplement que ni malentendu et que vous ñu posez problème bi ça va se régler ça ne peut pas être une source de blocage et vous devez pas aussi vous radicaliser de cette manière là posons le problème et réglons ça. C'est une attribution, c'est une compétence. Vous ne pouvez pas vous départir de ça. Ce n'est pas possible. La loi ne, vous autorise pas à le faire. N'est-ce pas euh, Le faisant même, vous êtes en faute, même si on vous a poussé à, à commettre la faute. N'est-ce pas Alors, et donc ça, mais je considère simplement que c'est un malentendu que l'on peut régler très très très rapidement. Maintenant, pour la géroute, les dos d'âne, bon, c'est vrai, tout le monde demande des dos d'âne. ku ci nekk day bugg sa dos d'âne parce que jàpp nga de loolu moom moo lay musal wala alors est-ce que c'est vrai ralentisseur Amna. mais est-ce que ci nii ñu koy c'est-à-dire pour régler le problème accident régler régler problème accident égal dodan n'est-ce pas dañuy demander dodan ba diko demander ci ay route nationale yo xamné dafa voilà dafa wara a c'est censé être voilà alors est-ce que c'est ça la solution dakhuma ñu def doodaan fi ñu ko wara def mais nak di def ay doodaan à répétition faut tourner japp ne moy moy solution bi koku tamit lu wara war la donc euh, man damay bàyyi techniciens yi techniciens yi ñooñu mun a wax fi nga xam ne en fonction de risque ya fa ne en fonction de ni mbedd ma bindoo en fonction de paramètre yu bëri war na am wala warul am du fi nga xam ne war na ko fa am ñu def ko fi nga xam ne waru fa am nag ñu xool yeneen levier yu ñuy activer pour fexe ba voilà euh, li ñuy ragal du fa am n'est-ce pas Mais warul que la solution systématique par rapport à tous les problèmes de, de, de circulation, d'accidents et, et autres. alors on euh, a foncier des sangs que ne dinañ ci def réunion gis nga euh, Thiès rek la gis bon bon ça pour du Thiès rek mais ni mu mel biir Thiès da fay jéggi dayo ñoo xamné dañuy investir ci kër ba R acte de vente amul alors c'est un problème c'est un vrai problème qu'il nous faut maintenant essayer de régler ñi nga def nañ ko ba euh, à travers une restructuration mun on verra tout ça ci réunion boobu ma wax mais il nous faut aller dans le sens de mettre en œuvre des opérations pour régulariser ñi nga xam ne mun nañ leen régulariser alors mais nag c'est un fléau boo xam ne buñ ko bàyyee nii mu continuer musiba ah et vraiment ma ngi ñaax pas yi wax dëgg yàlla ci rencontre buñ jàpp rek nag wax naa ko démb fële buñ jàpp ne nag problème fonctionnel foncier yooyu noonu état bi moo koy régler si c'est pas ça non ces problèmes là nous on vous accompagne je m'en naa taxaw ak service yi pour accompagner pour trouver une solution ak moyen yi ñu maintenant euh, la compétence revient aux communes en fonction des terres. N'est-ce pas Si c'est des terres qui appartiennent à l'État, ça c'est autre chose. Si c'est des terres du domaine national, on sait comment ça se passe. La commune même peut avoir des titres fonciers. Là aussi, on sait comment, comment ça doit se passer. Mais dans tous les cas, on va voir ensemble comment essayer de régler ce gros problème-là des, des, des alors, je crois que ni euh, en matière de santé, le médecin-chef a déjà, déjà tout dit. On a parlé d'éclairage public. Fait pour nous poser un problème. L'éclairage public dans les trois communes de la ville, ça pose problème. Et donc, on va, on va, on va saisir qui le droit sur ça et puis accompagner aux besoins avec les moyens que nous avons pour accompagner. Alors, euh, les, les Jakarta, les Jakarta aussi, ouais, le commissaire, euh, commissaire me, euh, me disait ce matin, Jakarta est nul n'est que problème, police. Parce qu'en réalité, oui, Jakarta est problème là ah euh, c'est activité bu nga xam ne nii tollu na fu nga xam ne bon bàyyi nañ muy dem bàyyi mu dem bàyyi mu dem ba léegi mu jéggi dayoo. alors il faut que nous ñu jël sunu responsabilités nous ak bi nga nañ waxtaan ak ci biir waxtaan bu dem nañ disons euh, euh, c'est-à-dire par le biais de la sensibilisation ils ont accepté de suivre c'est excellent waxtaan day am fu muy yem mun nañ tàmbalee ko waxtaan amal conscientiser parce que Jakarta boo koy dawal foog nga am ñeenti ah di nga sol casque di nga am permis di nga am assurance di nga am di nga ko immatriculé loolu yëpp ay règle la yoo xam ne dafa tegul ci seen ndodd donc ki nga xam ne bugg ko respecté mais kooku warul warul liggéey loolu dañ ne secteur bi boo ko buggee liggéey lii mooy règle yi alors donc yow da ngay ñëw nga respecter les règles yi nga liggéey boo nee man nag du ma ko respecter alors loolu ça pose problème boo nee munu munuma ko parce que parce que parce que ñu xool nuñ lay accompagner mais man munuma gëm ne ki nga xam ne def na investissement wu 400000 francs jënd Jakarta alors euh, mille francs wala 10 mille francs bu mu jëndee casque pour aar boppam waroon na ko poser problème. ki nga xam ne jël na quatre cent mille francs dugal ko ci benn jakarta pour liggéeyee ko ñu ne ko kay fay trente mille pour lii nii nga xam ne sa alal nga ko jëndee ñu def ko ci sa tur war na indi problème ki nga xam ne yow yaay war jakarta bi di dawal ñu ne la demal nga wuti permis pour nga xam yoonu dawal naka la loolu waru warul mun a indi problème alors mun nañ moo wax nag assurance yi ñun même bu ñu ko buggee mënuñ ko am parce que nanguñ ñoo assuré kooku beneen problème la mais au moins yii ma la wax ni war nañ ko mun a respecté ñoom te yaakaar naa ne ay ay borom xel lañ yaakaar naa ne buñ ci waxtaanee ak ñoom dinañ jëlal seen bopp initiative bu respecté loolu avant que muy am ay contrainte mais bu demee nag ba waxtaan boobu weesu foog ñu xool yeneen matuwaay yoo xam ne moo ñuy permettre ñoom ñu def li leen yoon digal je pense que ni euh, loolu la bu amul lu ma fàtte euh, loolu mooy euh, mooy bon les jeunes wax nañ par rapport ak voilà donc monsieur le maire a répondu je pense que ni euh, on peut se à, à ça alors il y a nag yoo xam ne. monsieur le maire jarul bàyyi muy muy sori ñi ñuy wax naan ay dañuy dem rek xool benn espace bu leen neex rek commencé ñëw di di def ay briques di teg di jaay occupé terrain boobu noonu yëpp dem ba mu yàgg sax ñu clôturer tuuti dem ba mu yàgg ñu ñëw ñu ne la fii maa ngi fi depuis vingt ans ah boobu ba tey nangam ak nangam def ne droit la alors ñooñu il faut dès que ñu gis ko rek ñu tàmbali ko benn waay daf ma wax ni ma. benn kilifa la ni ma Thiès rek moo am entrée bu mel nii de Dakar amul dëkk booy dugg gis espace bu yaatoo noonu ci kaw tali bi tey jii nii buñ amoon projet wu aménager foofu noonu mais beneen affaire lay doon mu ni ma euh, te buñ ko bàyyee noonu nag y a problème puisque la nature a horreur du sooy bàyyi noonu leneen ñëw wala keneen ñoo occupé ko dem ba mu nekk place am far alors donc vraiment war nañ xalaat ci ci yooyu donc yooyu yëpp daal dinañ ci dinañ ko gën a xootal ah dinañ ko gën a xootal et ñu ànd ci ànd ci liggéey euh, man nag dama dama am yaakaar bu baax ci ci ci yow monsieur le monsieur le maire ndax gis ni ngay ni ngay doxale gis ni ngay doxale ak Euh, sago bi ci demee mais ak euh, euh, courtoisie ak respect ah bi nga bi ngay àndal voilà donc loolu lu ñu ràññee la biñ fi biñ fi ñëwee léegi te lu lu ñu rafetlu la yëpp je crois que ñun ñoo ànd bokk di liggéey lenn rek mooy suñu préoccupation mooy jëmale askan wi kanam kese je crois que loolu lañ ma fi tegee loolu la fi population yi tegee loolu lañ fi tegee sous préfet bii nga xam ne moom moo nekk ak yéen fii nii état yebal ko fi donc waruñ mun a réeroo ci lenn maa ngi leen di ñaan en tout cas ñu ngi leen di ubbil suñu bunt di leen ñaan ñu ñu gën a yaatal waxtaan bi te ñu yëg ne sans préjugé buñ ci dem ak préjugé xanaa loo dem ba gisal sa bopp mais bul jóg rek yaakaar ne diw mii kat nangam ak nangam ak nangam n'est-ce pas des fois ay malentendu la wala ay manque d'information wala yooyu mais nañ dem ñu liggéey ñu poser problème yi ah jamono yi ñu ko war a poser ñu xool problème nag bon newul ne saa yoo ko poser mu am solution bi ñu ko poser tey peut-être même bu ñu amee solution bi peut-être que c'est pas le moment le plus opportun pour régler ko c'est pas c'est pas il y a beaucoup de trucs mais loolu yëpp nañ ci waxtaan nañ ci ànd nañ ci juboo ñu fexe daal li nga xam ne mooy suñu mission fii ñu mun ko ñu mun ko matal glissé nañ ma léegi ne am na lu am solo lu ma naroon a fàtte ci jotaay bi mooy wàllu état civil wàllu état civil muy problème bu rëy boo xam ne vraiment euh, war nañ ci trouver solution tey euh, dafa ñaaw dafa c'est même crime la sax lay wax ñu bàyyi xale bi mu dem ba di def ta euh, nu mu tuddati ñu ne ko munoo def examen vraiment loolu ku mu yëngalul sa xol war nañ la seetaan alors et donc loolu war nañ ci jóg tey ah wax naa les inspecteurs les deux inspecteurs de Thiès ville et Thiès département nañ ma defal situation wu xale yooyu xale yi nga xam ne ñu ngi ci biir école yi waxuma ñu nekk CM2 rek mais ñu ngi ci biir école yi te amuñ këyitu jub ñu àndandoo xool ci lu gaaw naka lañ leen di wutalee ay këyitu jub responsabilité bi nag moom li may wax ñépp a ko partagé ah waajur yi njëkk waajur yi njëkk ndax ñoom ñoo jur xale yi defal leen lu ne ngénte leen des fois ngénte yu dégg yu jéggi dayoo ba pare fàtte leen fàtte xale yi ah dañu dañuy ñooy jur xale bi rek rey ko nest ndax loolu crime la donc yow yaa jur xale bi rek rey ko ah loolu erreur la bu mag boo xam ne war na fi jógee jamono ji ñu toll kayitu juddu waratul tardeel nit donc nañ ci nañ ci jublu monsieur le maire. Mm. su boobaa nag ñu ànd ci ak maire yi ak partenaires yi xool naka la ñuy régler problème boobu noonu n'est-ce donc euh, je crois que c'est bon ah ah mun nañu dellu sant ñëpp gërëm ñëpp ci ci ci jotaay bi ah et di ko di ko rafetlu comme ni ma waxee tey moo newoon suñu. suñu suñu jotaay bu mujj ci biir ville de Thiès bu fi jógee dinañ dem ci ci département yi ah, ci arrondissement yi ci biir département bi pour def la même chose avec les différents différentes communes n'est-ce pas et li ñu ci yaakaar rek mooy li ñu gis fii ah, ñun ñi wax ñu ci dal ci njekk ak teranga li nga xam ne mooy seeni ay préoccupations ñu jël ko ànd ci ak service yi àndandoo pour liggéey ko incha allah ñaan yàlla mu mu may ñu ci ndam maa ngi jéggalu bu baax ah bu fekkee tontu ñu ñëpp incha allah bind nañ ñëpp. jërëjëf wasalaam. collaboration bi nga xamante ne Faye fi toog aussi on va continuer sans les remercier aussi les populations les jeunes d' être vraiment présents durant toute la séance euh, ak suñu papa yi yàgg na mais au moins fii. Je remercier Abbé, préfet pour le métro, Oui, la question de Wango te Inch'Allah, je vous apporte les documents Wango avant de euh, venir, c'est un quartier reconnu am nañu ay kayit mairie ville dans am délégué de quartier bu a daan fay man gis mais après euh, décret de 2008 le président Abdoulaye Wad, pour ériger Thiès en trois communes d'arrondissement def la commune de Thiès-Ouest en 18 quartiers donc ça c'est un décret présidentiel et ce décret 18 quartiers lañ officiel maintenant je ne vais pas vous c'est préfet dama ne leen euh, ñun ñëpp ay ci ay dafa am ci euh, fu bokk qui ku am nga réalité mais li que à mon niveau c'est officiellement installé comme un homme euh, chef religieux mais officiellement man crée créer un quartier li ñu mën nag président de la république à, travers le ministère. Et cette lettre-là, euh, le préfet Mal, aidez régions, aidé à accompagner, C'était pour, soit par décret, nous rectifier, corriger l'erreur, nous avons des demandes pour nous ériger euh, zone en quartier et c'est la procédure du top top ko conseil municipal délibéré Donc c'était à clarifier donc le décret bi ñu yor nous bu représentant 18 quartiers officiels, ñu am officiel yoo xam ni décret donc du suñu compétence nous ñu xëy alors que Thiès a un nombre de quartiers qui ñu autorisés dans la ville de Thiès et je crois que même Mar, mu ngi sait est-ce que Thiès atteint na ou pas mais dans vous assurez avec que nous sommes dans toutes les dispositions d'accompagner les populations maintenant les autres interprétations ça ne manque pas mais ci sama gémmiñ ci sa nopp nga xam ni ñu maintenant avec l'administration territoriale tous les documents je vais les transmettre au au au préfet à correspondance yi ñu nous yëpp ñu ensemble lu ci suñu compétences, ñu def ko lu ci lu suñu compétence ñu xam vraiment du du suñu compétence loolu daal la ñu doon tegee di sant di gërëm ñëpp di sant administration d' avoir organisé euh, cette rencontre les le bureau municipal à travers le premier action et tous les conseils municipaux qui sont là euh, imam ak abbé ñu def ñaan pour ñu mën a euh, yëkkati jataay bi comme moom lañ tàmbalee woon te yàlla def na ñu terminé ci jàmm ak